BOROMTOL, ferme kër yi liggéeyukaay yi ak képp ku soxla ndox bu sell si wàllu forage Verlom Agro Group indil solution bi ay technologie yu yees ànd ak jumtukaay yu yëngu si fanweer ak ñaari ponk yu yéem ak mbootaayu jëfandikukat ngir liggéey bu baax bu gaaw si anam bu nekk si suuf si woote leen si 33 953 24 90 wala si 77 568 21 66 ngir am ndimbal bu gaaw fépp foo mën si Sénégal salaam salaam salaam waa Sénégal yéen a ngi ci biir Pass TV ak vivian waxoon naa leen ko Paasan waxoon naa leen ne dangay xew yow par force am nga xel bi macha allah am nga xalaat bi wuyu ma feeling paaj Paasan ay Pass Pass TV la ñu naral Pass nag la Sénégal ba may tuddee Paasan paas boobu kenn xamagul ndax paas dina am mais tey Pass am na wuy ma Pass TV ca kaw ca kanam. loo leen bëgg a xam dugg leen Pass TV balaa maa kontaan rek Pa Assane sama frère Ndiab daal ne xoolal résumé. <laughs> Pass TV yéen a ngi ci biir yow maa la ko wax maa la ko wax. Eh, Sénégal ñoo fa. Sénégal ñoo fa. like this can you do this please. Pass yaa ko tuddee Pass de. boobu Pass amul. <laughs> nur avons ko ak colocataire mm-hmm. wax ci femme bi ñu mm-hmm. retrouver mm-hmm. euh, Ba que ni état bi pour que jeunes nous ñu récupérer parce que ça devient inquiétant quand même ça devient inquiétant waaw suis la lay wax xam police j'ai fait 4 ans à la police motax suma wax ne artisan la nit ñi su ma dañ na ma yow niveau bi nga du artisan <laughs> du nouveau artisan mais yalla daf ma dimbali dama jaar police def fa ñeenti at mhm. am fa ben formation bu ama am solo donc du coup mais euh, violence mom laa la wax moy indi insécurité mhm. te violence boobu noonu ak insécurité aussi dafa dafa am différence motax manela dafa am lu koy causer lepp lo gis dafa am cause mhm. cause yi limel naa la ko nee la pauvreté mo ci ñëk moy ñàkk xoolal quartier yi nga crime yi fi muy am yëpp da ngay gis ay quartier yoo xamante ni la ay quartier yu xaw a doy waaral la pauvreté chômage des jeunes oisiveté manque de tolérance ak com comportement comportement muy jikko tey ji yooyu mooy cause alcool hmm. mu yomb lool xale bi bu jógee dem ci baar bi ñu jaay ko Jakarta deux cent mun naan ko dootul xam fu mu nekk tey jii drogue. Jakarta Jakarta. lan la sàngara la noonu la tudd sàngara la bu tudd Jakarta dafa yomb. ok école yi sax dañ ko fay jaay. loolu pour man état ci la war a gën a xeex. drogue bi mais yooyu ci dëkk bi fii lañ koy defaree. fii wala daf fi daf fiy dugg. fii daf fiy dugg mais daf fi daf fiy dugg. Ah, mais ah. état moo amul benn contrôle. xam nga lu mu doon ah. waaw ah. yow. Mhm. mbuus su nga fi may fukki dërëm yi. waaw ni nga ko créé. waaw te pourtant su ma ci pôle nekk. mais pourquoi ñuy détail boobu pour mu faciliter bu yomb. mais ana service yi nga xamante ni ñoom. ñoo war a moo tax mën na la nag. contrôler li ñuy lekk ak yooyu moo tax ma ne dañ dernier moment dañu état dafa faillir ci côté boobu côté contrôle. Hmm. imaginez drogue bi da dégg ñu naan la ay vodis ay ay boissons yoo xam ne boo ko naanee dootoo xam foo ne ay suus te yooyu yëpp mu ngi dugg ci réew mi jeunes yi di ko utiliser. mais jeune bu tàggalikook sagoom pour pour nee nañ sàngara mooy ndeyu ñaawteef yi mooy sàngara mooy dorog rek nit ki bu tàggalikook sagoom lu lu ko jomboon rek mën na ko def lu mu doon jomb rek mun na ko def mhm. kon donc foofu la ñu war a accentuer xeex bi wax naa la ne la ak ñu fexe ba lépp li nga xamante ni crime volontaire la ñu dind ci grâce ak amnistie mhm. parce que tey jii nit ko bu ray nit tey ko war waruñ koo war a mun a bàyyi noonu comme ça wala bu ñu fekkee ne mënuñoo def tey jii euh, peine de mort mënuñ ko rétablir mais ñu def comme États-Unis États-Unis prison wax ne boo fa duggee armeel nga ne mooy fii yow fi nous, donc il faut que loi soit sévère pour que nit attention mais vous que une loi bi sévèreul droit de l'homicide droit de l'homicide nous devons sonal nit ñi dem ci de l'homme mm. intervention pour moi, man vous ma assemblée nationale intervention dama man ñu ma yow di intervention parce que il faut que ñu sévère loi pour que mu pour que parce que tay ji intervention Sénégal da ngay gis à la minute que commissaire euh, euh, général ministre ku nekk di ba sax day bëgg parce que affaire bi monsieur Ba jeunesse bu mhm. parce que Sénégal li mhm xool réseaux sociaux et comment les jeunes se comportent mhm. gis euh, en fait fit biñu ñu am mhm. euh, laisser aller bi fi mhm. pour man euh, état bi vraiment ils ont du pain sur moo tax man la jeunesse bu vous ci réew force la waaye faiblesse la force la ci bu état bi bu ko utiliser à bon escient mais faiblesse la ci tey bu leen laisser à eux-mêmes te tey da ngay jeunesse bi dañ leen laisser à eux-mêmes

da ngay dem tëddi nelaw wala nga dem defar defaral sa jëkkër lekk wala nga xam yaa xam nooy def mais doo dem ci mbedd mi def di n'importe quoi parce que am nga sa liggéey am nga benn sutura boo xamante ni dana la permettre ngay dund décemment mais tey ki nga xamante ni dafa dëkk tey ci banlieue bi amul benn ussu papaam bu xëyee xëy na poor añ dong lay lijjanti reer ba yoonam newu ci ndékki bi yoonam newu ci donc kooku pour mu verser wu dans la violence dafay yomb

ki nga xamante ni dafa nekk xarit ak nitam tey jii Aziz Dabala boobu ñuy wax ñi ko rey peut ni mu xam la ñu ñu mën a ñoom ak sa biir këram na kon donc loolu police mënu ci dara mais yaakaar naa ne ñoo ñu ko doon def bu fekkoon ne tey jii xam nañ ne buñ ko defee buñ paree bu leen leeree bu leeree Sénégal ne ñii nii la Arabie Saoudite xalaatoo ko fa. waaw ah, c'est vrai Arabie Saoudite ah. xalaatoo ko fa rey nit. Ah. parce que xam nga ne boo ko defee xam nga la ci fekk kenn mënu laa defar intervention. Sénégal amoon na fi ay cas d'école ñoo xamante ni dañ fa am problème crime foofu noonu Sénégal def na loolu pour récupérer leen waaye day dañ lay rey buñ xamee ne yow mii da ngaa rey dañ lay rey buñ xamee ne yow mii da ngaa sàcc dañuy dagg sa loxo pour man foofu lañ war a jëm du soxor du lenn mais loolu moo mën a wàññ affaire bi parce que bu loi bi sévèrul tey jii euh, nit ñi mën nañ fi jaaree mooy war a mooy transport bi même problème boobu la am parce que chauffeur bi da ngay gis chauffeur boo xam day crise koros dëngal casquette am def ay casque taal maal kooku amul benn benn benn fu ñu ko war a bàyyi muy dawal bu wax mu saaga la di daw oto bi ñu ne la yemal quatre vingt kilomètres à l'heure mu muy daw cent cent cent vingt kilomètres à l'heure comprendre moo tax réew mi dañ ko war a ndëppal. dañ ko war a ndëppal li li li li li li oustaz wax léegi <laughs> waaw dafa compliqué quoi ah, li ci li ci nekk yëpp dafa xaw a compliqué mm-hmm. ba ba tax na il faut que état taxaw reste un état.

waaye ñoom li seen loi sévère na sévère boo xamante ni balaa ñoo def dara dañ koy xool xoolaat. c'est ce que j'ai l'habitude de dire. waaw damay wax ni euh, ñun gënuñu en fait tubaab yi gënuñu ñu yarou. Hmm. mais c'est que xam nañ ñu ni. Hmm. ils sont tellement intransigeants ci hmm. seen ay règles. que ni xam nga ni boo defee lii lii moo la siy fekk mhm. ba nga xamante ne fu ñu toog mhm. ñoom ñu ngi koy sóoraale mhm. mais c'est pas parce que ni ñoom dañ ñoo gën a yaru wala dañ ñoo gën a xam àddina mais xam nañ ni bu ñu defee outrage bi lii moo leen si nar a fekk te pourtant loolu mën na am Sénégal ndax moodu moodu yu jóge fii di dem foofu da ngay gis ñuy xuloo bay tegante waaye da ngay dégg ñu nekk ci gannaaw naan bul dóor de bul dóor waaw xam na ni buñ doore li leen ci fekk. mais Sénégal nag li fi nekk monsieur Batam kenn mënu ko wax. moo tax xoolal euh, ci par exemple les les chauffeurs ci milieu du transport bi bu ñu bëggee def les permis à point. Hmm. mais ñoom ñëpp dañu taxaw. Hmm. contre loolu ni du fi amee. Hmm. parce que lii parce que commencé utal lay chauffeurs yi mais dëkk bu mel noonu aussi itam euh, nees koy mën a defaree. waaw mais est-ce que état da nga war a taxaw pour defar réew mi ay chauffeurs taxaw na la lii. waaw mais bu nekkee état boo xamante ne yaa ngi xalaat ni.

dafa dafa pour man des na nañ boo defee accident te tey ko bu dee dix morts am ci euh, oto bi dix morts yi moor bu ne un an la ñu tëj la dix ans parce que gis nga homicide involontaire uh-huh. si homicide involontaire da ngay gis chauffeur chauffeur bi xam na ne moom bu demee même bu ñu retiré permis day dem après syndicat bi mooy dama retiré permis récupérer permis uh-huh. même bu ñu ko tëjee un mois lay def parce que dañ un homicide involontaire c'est un problème au euh, Sénégal homicide involontaire donc pour man loi yi la ñu waroon njëkk a xoolaat gis nga bu ñu fexee ba corser loi yi ba mu saf sax bañ def ci ay cas appliqué ko mais bien sûr loolu laa la wax corsé ko pare appliqué ko bu la leeral na yow mi lii boo ko defee lii la ci fekk balaa nga ko def da ko xoolaat donc pour man mhm. loolu te des début de solution bien que nag àdduna bi fi ne dafa jëm ci yàqu donc mais moo ñoo mën a atténuer affaire bi ba nga xamante ni nit ñi danañ mën a am benn vivre ensemble boo xamante ni ku nekk dana mën a xam fi muy yem bu ko defee réew mi mën a jëm kanam jërëjëf monsieur Ba pour vos champs, fermes, maisons, chantiers ou avez-vous juste besoin d'eau potable Verlom Agro Group vous amène des camions équipés de nouvelles technologies de forage, un équipement de sondage de 32 points simultanés, une équipe expérimentée pour un service de forage avec précision et rapidité, peu importe la structure du sol appelez le 33 153 24 90 ou le 77 568 21 66 pour une intervention rapide n'importe où au Sénégal.